asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki taalibe yi bokki jullit yi ñoo ngi jàkkaarloo tey ak alaaji Mouhamed Mahmoud Niang ci niñ ko xamee ci xam-xamam ak yaatoom ak xam dëkk bi ñu bëggoon a waxtaan ak moom tey ci lu soxal murid di soxal jullit yi yépp mu di daaray kaamil wala maktabatu cheikhul khadim wala bibliothèque cheikhul khadim ñett yoy yep ay turle. la wante ba ci modi siiw modi kamil ci wolof kon su de ci tubab modi maktabatu cheikhul khadim ñu doon ko ci laaj ci ginnaw liggéey na ci ak cheikh abdoulaye mbake ci bam ko tambulé ci cosaan la ba ci mujj gi ba cheikh abdoulaye mbake wacc ci liggéey ba cheikh salihou mbake saytu ko ba ni ñu doon ko ci laaj lan moo waral cosaanu bibliothèque bi ak aw doxinam ak Pastef bi ak jubluk Cheikhul Xadim ak Cheikh Abdoul Ahad mi ko fi defoon kon sëñ bi loolu mooy li nga xamante ne bi ne moom lañ bëggoon nga tënkal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu <coughs> sëriñ Sam loolu li nga may laaj ci <coughs> daaray kaamil ji wala <coughs> bibliothèque bi wala maktabatu Cheikh al Xadim tur yëpp des na ko ko di jox waaye li wér moo di sëriñ Touba sëriñ Abdou Lahad Mbacké dafa waxoon ne sëriñ bi la doonoon bëgg-bëggam dëgg-dëgg nga xam ne mooy trésoram moo di li nga xam ne la ndaj xolam moo doonoon kanzil kitaabu wal xadiisu wal adab la jamu fiddatin wala jamu dahab loo ko ma saa jox lu dul alquran ولا حديث ولا تيري خم خم يو جثاني تلي واحد تقل فوف دكان نقول لهم بعدين نك بأي مبام أمود باس دكتي أفهمي دف خايز أمكو بوكو جاه خايز ده تقل فوف لو كجاه لو تير الأخوان دكو دكو بوكو جاه تير الأخوان من نقول نيار لهم تفشي دنم تنقول لكو تك بير لورو كان لورو مودن ترزورو مودن خم مودن دينجون بير كرم غو خم مودن 200 متر كاره ay baraag fees ci dell baraag yu yëpp ak gaal yeeg mboolem la fa nekkoon lépp ay dencukaay téere rek la woon dañ fa daa téere alquran yi téere xam-xam yi téere tafsir yi téere hadis yi moo ko feesan dell ci biir loolu daana am ay torofa torof yu cay am ndax tollukaay jamono ji ak melokaan yu dencukaay yi dafa yëgguto fii mu toll léegi am na ci yoo xam ne tàngooru seng bi ak tàngooru gaal yi moo moo tax kayit ga ñor am na ci yoo xam ne ak la ko mas am mu yàquwaalu ci am na ci yoo xam ne nit ñi dañ ko doon luubal waaye lu lépp doontoon la gën a doon sëñ bi moo doonoon daal téere yi ñu ñoŋal ko mu mu nekk eh, ndaxañ téefam doon pàggu téefam doon li nga xam moom lay denc bi yàlla dogalee sëriñ bi di ko Tuubaa nag te téere yooyu ci bari tasaaroo am na ci benn benn yoo xam ne ñi farlu woon ci waa kër gi amoon nañu ko moom mel na kër sëñ Suwaay bu Mbàkke amoon na ci lu bari ci téere cosaan yooyu sëñ bi dencoon muy ummahaal ummahaatul kutub yi am na ci yoo xam ne Cheikh Mamadou Bachir Mbacke mooy tamit euh, bibliothèque am amoon na ci yoo xam ne ci yooyee bokk ci ummahaatul kutub yi ak yeneen ak yeneen yi tasaaroo fu ne ci àdduna bi mu taxawee ci soixante-dixième yi dafa wax ne gannaaw sëriñ bi daal bëgg-bëgg moo doon téere te téere yi tasaaru na bëgg na ko delloo si téere yi nga xam ne mooy yi ñu xamoon ci cosaan mu nekkoon fa ci kër gi te tolof tolof yooyu am ci ba wërloon na béréb yooyu nga xam ne ñoom amoon nañu ko ma jël seeni tur yëpp def ko ci ab benn euh, euh, list muy yu bare bare bare bare xeeti ummahatul kutub yëpp ma nga ci woon xeeti tafsir quraan yi xeeti ulumal quraan yi xeeti xadis yi xeeti umma euh, ulumul xadis yi ak mustalahaat yi ak xawaamis yeeg ak mboolem téere boo xam ne bii ñu jëm ci al ilm wala ci al amal wala ci al adabul yi wala mu jëm ci xeet yi lépp loo xam ne rek lu soxal diine ji la soxal jumtuwaay yi ñuy war a mën a xame yëpp amoon na fi sëriñ bi ne mën nañ dajale tur yu yëpp nga dem misra fi nga xam ne mooy uh, um, uh, ñoom ñoo ngi ko tuddee umu dunia foofu mooy fi nga xam daal mooy mañ ma baxare nii fi la xam-xam yi daje bépp téere boo xam ne jaaxal na fa ak fu ñu ko mën a taalifi boo demee misra am na fa maktaba boo xam ne bii yooye téere lay jaay mu yebal ma ci ci jamono yi 1960 1980 fekk na booba tabax na kër gii di daare kaamil ji tabax ko tabax ci style boo xam ne bu nëpp bu niroog euh, bibliothèque yu yu adduna ji la ndax bañ ko defee ba yeggal yebaloon na ma yoon woo xam ne dama doon wër bibliothèque yi ak euh, béréb yi nga xam ne mooy maktabaat euh, yi ak euh, yi nga xam ne yu àdduna jëpp la ak jaamiaat yi université yi demoon na Maroc gis naa jaamiatul xarawiyin gis naa bibliothèque royale ba fa ne gëstu naa ko gis naa na mu tëdd ak na mu ak téere yi nga xam moo fa am ak yi nga xam ne kutub li tabaadul la ak yi nga xam ne ñooy cosaan yi nga xam ne mu àllufaat maghribiya la nga xam ne ñoom ñoo dañ koy weccente waaye duñ ko jaay ak yëpp gis naa ko ka nga xam ne moo fa nekkoon ci yooyu jamono itam wanoon na ma bibliothèque bi ak na ñuy denc téere ba du yàqu ak yu bare bari ay secret yu fa am yoo xam ne leeraloon na ma ko ba mujjoon na sax ne su fekkee ne sëriñ bi bëgg na mën naa yebal si ay xele ñu moom dana leen may bursu ñu toog fa ñaari at ñett ñu defal leen tekwin ngir ñu man a xam ni ñu téye mbiri bibliothèque ay nekk ay bibliothécaires yoo xam ne yu yu xam doxi doxinu leen ak nañ koy denc dem naa Tunis dem naa ci Xayrawaan dem naa jameetu eh, Zaytona jëm naa ci maktabaat yëpp moom itam moom gis naa seeni kilifa ba leeral na ma na xam moom lañuy doxale seen kii dem naa Algérie dem naa mamlakatul arabiya saoudia ba dal ci ñi nga xam ne ñoo di kii eh, rabitatul ku ñuy wax Sayid eh, Ali al-Harakan moo doonoon aminul am ci yooyu jamono ba demee it moom moo ma dalaloon ci hôtel alxaram ci mag eh, jidda ma ma ci eh, hôtel alxaramayni ci makkal mukarrama jox ma oto ma may dem arafat ak delsi jox ma oto bu ma war a yóbbu madinatu munawwara ba dem foofu it dalal nañ ma foofu ci hôtel bi nga xam ne hôtel rihab mu wër fa la nga xam mooy dencukaayu téere ak kii dem naa ci jaamiatul islamia al madinatu munawara fi nga xam ne moom itam seen bibliothèque ak seen i téere ak seen umaatul kutub ak yëpp ak nañu système ba ñu jàngale yëpp fekk naa sax benn benn ci euh, ay sénégalais yoo xam ne ña nga fay jàng ci yooyu jamono ak euh, ñu bëree bëri loolu itam gëstu naa ko ba gis la nga xam moo fay muallafaat yi nga xam ne foofu la bàyyi ko muallafaat yi nga xam ne ñoo bàyyi ko Maroc muallafaat yi nga xam ne ñoo bàyyi ko Tunis yu bàyyi ko Aljazair yu bàyyi ko Iraq yu bàyyi ko yeman yu bàyyi ko euh, Suria yu bàyyi ko Libnaan ak mboolem béréb yi nga xam ne béréb yi yu euh, xam-xam lañu ak seeni taalif ak seen odaba yi yëpp yi ñuy def ak shuara yeeg ak euh, mm, gëstu naa ko ba gis ko ba jël ci ay afkaar jël ci ay list ak kii bari kii baa wone mu ne kon léegi nañu jëkkee li nga xam ne moo di téere yi amoon fii ba noppi te sëñ bi amoon ko yu bari la rexla bi ma jëkk a def ci 1980 81 baa demee Égypte laa jàll ndax foofu wax naa ne mooy fii téere yi maktabaat yëpp daje maktaba boo xam ne bi je mu alafaat iraq yi rek lay jaay maktaba boo xam ne mu alafaat masri yi rek lay jaay daal mu daal misr lil kitaab ak maktaba boo xam ne waa muallafaat suuriya ak seeni udaba rek lay jaay ak yoo xam ne yu Libnaan moom la ñuy jaay ak yoo xam ne yu Yaman ak yoo xam ne al mamlakatul arabiya saudi ak yoo xam ne mamlakatul maghribi ak yoo xam ne Tunis la al Ghadra ak yi nga xam ne moo di yu Jasaayir yi ak yi nga xam ne moo di birab yi intaajaat adab yi yëpp fu ci nekk seeni téere ak seeni kii am na fa libraire yi yoo xam ne yooyu rek lay jaay ma ba ma njëkkee dem. la ma doon liggéey moo di yër téere yi nga xam moo doon yii sëñ bi amoon fii rexla boobu am naa fa cent 18 tonnes 195 kilos 18 tonnes 195 kilos ci ay téere yoo xam ne moo yi sëñ bi amoon ba noppi ak seeni tur te fekk am na ci yoo xam ne tur yoo xam ne ba kenn gisatu ko ndax téere yi réer na ci biir nit ñi ba ma ko andee bañ ko jikkee teg ci rayon yi fi nga xam ne mooy ci ci fii ci eh, werandaa yi rek mu nekk ay jal yu bare bare bari te dugalaguñ ko ci rayon ci kii rayon yi yooyu jamono sëriñ bi daal na yónnee ci sëriñ Souhaïbou bi mi nga xam ne dafa bëgg xam lool ak sëriñ Habib Mbacké mi nga xam ne daa bëgg xam-xam lool ak sëriñ Abdou Khadir ak sëriñ Murtala ak Cheikh Salihu ak euh, ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci yooyu jamono te nekkal fi euh, sëriñ njabootu kër kër gu mag gi ne leen téere yi nga xam ne day seen bàyyi moo ko dajale woon fii ngir moo doonoon trésor am di bëgg-bëggam di nekk xolam di li nga xam moom lay denc ni mu ko waxee kanzil kitaabu wala xadiisu wala adab laa jam u fiddatin wala jam u dahab kon téere yooyu delloosil nañ leen ko mu ngi nii dama bëgg ngeen xool ko ba ñu sa ko dugal ci rayon yi sa ko wuti yeneen téere yoo xam ne yu yu am ci jamono jii la nga xam bu ko fekkoon dana ko soxla moom itam daañ ko jëli bañ ko waree ba yeggal waaru nañ ci lool sëñ Suwaybu ak sëñ Abibu wax nañ seen làmmiñ ne gis nañ fa benn téere boo xam ne day moom tur yi rek moom lañ daa dégg ñu naan fa fil mu dawanatul kubra euh, nangam nangam di ci def ay shawahid waaye jëmmi téere bi ci boppam seen bëtën ci soog a dal ci jamono yi te indi nañ ci booba trois cent quelque ci ay téere yu yu yu bokk yu boo xam mu dawoona a boobu la yooyu nag dafa bari lool ci yooyu jamono yoo xam ne tur yi dégg nañ ko waaye gis nañ jëmm yi Euh, bi nga xam yàlla dogal na mu mu mu mu mu ñu ñu ñu ñu ñu ñu wax loolu sëriñ bi ne kon boog seen téere bàyyi ngoog ñu ko fiy dugal daañu wuti at yeneen dolli ko ci incha allah ba ba xolam sedd ñu daal dugal yooyu ci kii ci déwén sa 1982 demaat na moom itam dem benn rexe la am na quinze tonnes 15 euh, tonnes yu tofal ay kilo moom itam yëpp lu ci nekk buñ ko. liggéeyee ba mat def ko ci ay conteneur dañ benn bi dañ koy def ci ay cargo avion ñu fay ko mu dikk ñu dugal ko ci bibliothèque bi am ci yoo xam ne ci bateau lañ koy dugal yóbbu ko eh, ci port Iskandrie fekk na am na foofa booba sëñ xaadim bu sëñ Mouhamadul Moustapha Mbacké ma nga fa ci yooyu jamono liggéey foofu ci ambassade ba moonu daal dimbale ci dem ci wasaaratul xaarijiya ak eh, béréb yi nga xam ni mooy asar zarif ak majlisul arab suwani islamia nga xam ne ñooñu ñooy ñu seq téere yi nga xam ne yu war a génne ci réew mi la ndax bokkoon na ci aada yi misra boolem ñu fay jàng sax bu ñu jàngee béykat téere yi nga xam ne raar la ñu doon jàng ak ñoo xam ne dañ koo bëgg lool mu doon leen di jëriñ ci bu ndikkee ci réew réew ma nanguwutoon ñu génne leen leen bu loo ci jàng béykat dañ ko dañ dañ koy boroke ñu def ko ci ay carton denc ko ci ambassade boo la fa leen fi nga xam ñu denc jamono yooyu maanaam génn fa téere dafa jafe lool waaye nag ci ngëneelul sëñ xaadim mu mi rahmatullahi alayhi ak ñi nga xam ñoo ñoo ko doon jàppale ci wàllu googu ñoo ma dimbale ba waa gouvernement Égypte defal ma accord boo xam ne ittifaaqiya boo xam ne ne lii di dimbal taawun la bayna Sénégal wal Maghrib fi suwan saqaafiya wal adabiya wal kasra ci biir accord boobu ci lañ nu maye ñu jënd téré yépp yu ñu bëggoon ñu nangu woon mu génn ñu nangu wutoon mu génn yépp may nañ ma man ma mën koo génne jënd ko indi ko Touba ñu def ko ci bibliothèque bi euh, kon ci laa defee woon li euh, rixale bu njëkk bu nga xam ne 195 kilos euh, yu topp la yi nga xam moom amoon na fi bi nga xam ne bu ñaaral bi ci laa amee 16 tonnes yu topp la yoo xam moom téere la yoo xam ne seeni tur moo fi dikk waaye jëmm yi amagutoon ci yooyu jamono Euh, yëpp andi nañ ko fii lu dugal ko ci kii bi ñu may na itam rox sax ci ma man koy génne te amul contrôle amul euh, lu ñu lu ñu nangu ci biir loolu sax ci la profité woon mboolem ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ci doon ñu doon jàng sëñ Xaasim bu sëñ Mourtala ak euh, Cheikh Cheikh Mbaye Yaram do do kii rakkam kii yenam tuuti ki ki ki Mbaye ah Taala Mbaye waaw doomi sëñ Yaram moom itam amoon na fa ay téere yoo xam ne bëggoon na mu dikk te mënta ñëw ay carton yu bare bari alaj sëñ nag ñi sama rakk ji am na fa téere yu bari yoo xam ne ba mu fay jàngale ko fa bàyyi ma nga woon ci ambassade ba ak sëñ xaasi moom ak ñeneen ak ñu bari ñoom ñëpp ma fab loolu profité euh, numéroté carton yooyu def ci seen tur dugalaale ko ci biir conteneur yi nga xam moom lay andi muy téere yi andi leen ko Sénégal ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ne ñu bokkut ak ñooñu lañ euh, ci la ubbi woon buntub daal ñu mën a jëlee téere yu yu raar yëpp ak yi nga xam ne amut ci réew mi mu mën a ñëw ci réew mi ci ngëneelal Cheikh Abdoul Ahad ak euh, accord bi nga xam ne nañu def taawun bayna Sénégal wal Masr ci suwali saqaafiya wala adabiya wala euh, sharia ci biir loolu bi ma dikkee moom it ñu dal ko dugal ci réa yi bi nga euh, ba ca rexla bu ñetteel ba 1983 la war doon moom am naa quinze tonnes ak nangam yooyu moom daa mujjoon doon jeexaat rek lu téere bu ma gis boo xam ne bu ñu bind eh, mu jëm ci diine ji wala mu jëm ci adabal arab yi wala mu jëm ci shuara yeeg yu deme noonu eh, ak xam-xam yu jafe yi amul quran ak yi nga xam ne tafasir yi képp fii ci réew mi yi fi dikkoon booba weesu tafsirul tafsirul eh, jalaale yi ak tafsirul manar ak tafsirul xurtu bi ak yu demee ñoo fi amoon waaye baa demee foofu gis naa fa lu man ñaar fukki tafasir yu bokkut yoo xam ne almaraar yeeg kasa wa kasa yoo xam ne ay tafasir yu raar yoo xam ne tur yi sax dikkut fii ci boppam jëm yi nga xam mooy addis yi itam yi nga xam moo fi xewoon ci ay jamono moo di tafsir mooy hadis bu Buxaari ak limaam Muslim ñi demee ak Maaji ak ñi demee noonu ak seen seen seen seen i moroom yooyu itam loo xam ne lu bokk ci téere yooyu dajal nañ ko gannaaw ba amaan nañ yeneen yu bari yoo xam ne yu am la te daw dikk ci réew mi muy te muy aymatul isne asar yi nga xam moo jógee Iran ak ak ak alfiq alfiq almasaayib al arbaa nga xam ne fii moom téere yi li ma fiqu limaam maliki moo fi daa ñëw waaye indial nañu fiqu limaam xanafi ak an xanbali ak ak ak ak ak chafii waaw mu fekki boobu maliki bi ñoo ñëpp seeni i muallafaat ak seeni i fiq andi nañ ko fii ngir mu mën a gën a matale e, bi nga xam ne bi def nañ ko ñetti ñetti ñetti rexla yooyu nag daa e, xismu bi nga xam ne mooy xismul mustawradaat min al xaarij e, yëpp moom fees na ci mu xam ne war naa mat lopp cinquante quelque ci ci kii ci ay ci fekk na ci biir loolu itam sëriñ bi ci kaw xeruk bëgg ñu téye trace Cheikh al Xadim yi liggéey na euh, imprimerie bu ne ci biir yebal nu dem fu ñuy wax Graphitex nga xam ne Bompard lañ ko daaf bu njëkk ma nga nekk ndakaaru fa la ñuy dem ñu yebal fa sëñ Saam ñoom ñi yeeg ak sëñ Mbàkke Gassama ñoom ak al HK ak euh, ñi nga xam ne ñoo ak bañ demee fekk nañ fa bay di faal mu doon fa liggéey ci yee jamono moom loola moo ko fab ba mu bokk ci ñi doon doon doon taxawu ci jàngale machine yi ba far daa dikk fii ànd ak ñoom ci liggéey bi fii ak ñeneen ñu bari ak mu fi jóge barki dem ak ñu ñëpp nekkoon nañ fa ci yee jamono ci liggéey ci téer ci Graphitech ñu jënd foofa ay té ay ay ay ay téere ay ay astaghfirullah machine yoo xam ne abe abédig la yoo xam yu baree bari lañu bi ci nekk ay millions yu bari la ko sëriñ bi jënde ànd ak i masi euh, masiko ak ak jihaz yoo xam ne li sérigraphe la ak yeneen yoo xam ne lépp loo xam ne lu aju ci euh, mool la tappa wa nashr ñu andi ko fii ñoom def nañ foofu stage ba mokkal ko bi njëkkee fii kenn ku ne jox nañ la machine nga féete woo ko mu jënd ay ay ramet machine kayit gu doy nga xam ne gi euh, kii lay papier coché li doon coché yi nga xam ne day doon loo xam ne lu mën a jàpp imprime mool la te day leer te du am bentage ak jumtuwaay yi nga xam mooy mool yëpp ñu jënd ko indi ko ak seeni i ak seen yëf biñ dikkee mool nañ fi ci li nga xam ne mooy diwaan ah, kii te te te yi nga xam ne mooy kii yi nga xam ne mooy mooy euh, mooy. مصاحف القرآن يوري يبند كده يعني خمني يوم فيني كنت كمان سيد مصطفى صالح مبكي ابن شهر شيخ صالح هو أمر كامل بوم بند بوا مول نكو أي جني سيد عبد الله حد ابن شيخ شعيب مبكي مول بند كامل بوا خمني مول نكو أي جني عبد القادر سيد عبد القادر مبكي دوم شيخ عبد الله حد مبكي ما يتم بند كامل برفت بوا خمني مول نكو أي جني سيد maktar bu sa mi nek ci jumaa tay tey bindoon na kaamil bu rafet bo xam moy tam mo lañ ko ay euh ki ki nga xam modi di ku ñu wax kii seigne Mori gay nekkon ci weti mbour moy tam mo na fi min min téemé téré bo xam mo lañ ko ay junni ci ci kaamil bu rafet bu wow ak euh, mambal bu so domi seigne Moulay Bousso bind na kaamil bu rafet bo xam top nañ ko mo mo lañ ci ay junni ak sëñ Cheikh Jaxate ibnu Cheikh Amsatu Jaxate bind na kaamil bu rafet boo xam ne moom lañ ci ay junni ak bindkat yu mag yoo xam ne yu fi nekkoon ci ay jamono yëpp kenn ku ne la nga moo la nga bind sëñ bi def na ko téere bu bu bu bu rafet boo xam ne dañ koy def nañ ko war def lépp ba mel ne kaamil yi daa nekk njaareem loole bañ ko dajalee matoon na soixante di soixante quelque soixante mille yu tegal ci ay téere yoo xam ne yëpp moom lañ ko relayer ko defar ko ba mu jekk ñu def ko ci xismu béréb boo xam ne boo fa demee kaamil yi rek moo fa ne xismu quran yi la am na yeneen béréb yoo xam ne itam xasaayid yi ak taarif yi nga xam ne moo di euh, taarif yi yi nga xam ne yu jàngale xam-xam yi la ñu gëntee Euh, Mawahibul Quddus Mawahib Mawahibul Quddus Munawwirus Sudur al Jawharun Nafis Tasawwurus Subhan Tasawwurus Saxaar ak ak ak euh, Nahju Qadaa'il Haaj ak euh, Mulhatul Sa'aadat Tullaab ak téere yi nga xam ne sëriñ bi moo ko taarif yëpp mu jëm ci tarbiya wa taalim ak yëpp mool nañ ci lu takku ak ay diiwaan yoo xam ne yu jëm ci wàllu muqayyad bi ayatul quraaniya ak yoo xam ne xayr muqayyada bi ayatil qur'aniya ak yo ak yoo xam dañ ko muqayyada la bi ayat wa suwar wa kii kasa kasa mooy diwaanu boppam la ak diwaan bu ñuy wax silkul jawahir ak bu ñu fi axbaari sarair ak diwaan boo xam ne bi mooy masalikul jinaan ak yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ay xeet ñoom itam ñu ber leen seen diwaanu boppam ak diwaan boo xam ne للتوحيد والفقه والتصوف موم لا داجالي موم تام با مات اب ديوان مول نانكو موم تام يوي ديم نا سي 80 ميل يو تفال سي اي تيري يو خامني فوفو نانكو مول سي بير دار جي تيكو فوفو سي خيسم بوبي خا خامني موي خيسم بوبو لولو مو كومبوزي دار جي سي يي جامن سي والو تيري امنا في بن خيسم بو خامني موم تيري ييغا خامني موي ني مول في الخارج لا ak yi nga xam ne ay hadaaya yu jóge ci duwal yéeg ak muroog yéeg ak roasa xukumaat yi moom itam amoon nañ ci lu waroon fukki junni ak nangam yoo xam ne am na ca kaamil yoo xam ne Yasir Arafat moo ko yónnee si woon addiye fii ci sëñ bi ñu teg ko foofa ci ci birab boobu am na boo xam ne Abdou juuf mi moo tukki woon penku ñu jox ko fa kado mu di ki jox ko sëñ bi ñu def ko ci daal ji foofu ak ñeneen i kilifa yu bari yoo xam ne kenn ku nekk joxe nga fi kaamil boo xam ne bu raar la bu ñu kii am ma musaf boo xam ne bi ñu ko móole xut si sharif nga xam ne mooy tam bu ñu fonk-fonk la boîte bi ñu ko defal sax sa def lañ ko liggéeyee mu rafet lool moom itam am nañ ci ay diwaan ay ay téere yoo xam ne dañ ko indil addiye ñu teg ko foofu foofa béréb boo xam ne daal lu mat fukki junne nangam ci ay mool yu alquran yu bokkut ñu ngeen moole ak xam nga réew mu nekk am nga sa masaf boo xam ne bu rasmi la nga xam ne moom moom moom la ñuy joxe cadeau ci kilifa yi fay dikk moom lañ fa defit mu nekk boo xam ne moom moom la ñuy kii daal nga xam ne boo demee Maghrib am na musaful xasani boo xam ne bi jox nañu ci lim bu takku boo xam ñoom foofu dañ ko bind fa lañ ko moole ma ma am na mursaf boo xam ne aljazairi la boo xam ne foofu lañ ko moole fa lañ ko bindee xaddasul murad boo am na tunis am na mursaf boo xam ne foofu lañ ko moole fa lañ fa lañ ko moole mu nekk kii itam fa lañ ko bindee itam am nañ mursaf yoo xam ne itam bu xaramen sharifayni la am na boo xam ne itam daal kitaab daar misr lil kutub fa lañ ko moole mooy itam moom mooy mursaf bi nga xam ne mooy seen mursaf rasmi ak Algérie am nañ ko Tunisie am nañ ko Syrie am nañ ko Libnan am nañ ko réew yu arab yëpp am nañ ko ak Irak fépp nañ ca yooyu yëpp am nañ ci ay cadeau yu bare bari yoo xam ne moom jënduñu ko dañ ñu ko jox ba mat fukki junni ak nangam ci ay téere yu fa ne ca fiir biir foofa am na fa benn ruq boo xam ne bii lu war a mat 2 mètres carré la wala lu toll ci loolu motxaf la bu saxir boo xam ne dañ fay denc euh, li nga xam ne mooy téere mbindi cosaan yi nga xam ne boo demee ci bibliothèque yi ci àdduna ji bibliothèque royale bibliothèque yi nangam-nangam yëpp da fekk ñu defal fa yu mel noonu lu mel ne musée nga xam ne mbind yi nga xam ne am nañ junniyaat ak yi am junniyaat ak nangam ak musaful xusmaani ak musaful nangam boo demee Misra ci um, mataful islami ak mataful xibti ak nangam-nangam yëpp da nga fa fekk téere yooyu nga xam ne dañ koy def ci witrin yoo xam ne day am lumière boo xam ne du fay guddi ak bëccëg waaye doon luy far mbind itam ñu ubbi ci benn paas rek bind ci nag ci kii ndax mbind yàgg yi am na ci yoo xam ne daawut am tomb muy rawat na ji lettre yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa yónnee ci eh, nit ñi nga xam ne ñooy ñoom la bëgg ñu dugg ci lislaam mel ne eh, ki nga xam ne moo nekkoon Rome ak ki nga xam ne moo nekkoon eh, Najashi bu Euh, cippi ak ak ñeneen ñeneen ñu bare bari ñoo xam ne ku nekk yónni la lettre dina woo ci diine lislaam ak la nga ton la nga tontu jamono yooyu mbind yooyu lettre yu dawut am tomb waaye dañ ko def comme sérigraphe andi ko teg ko fa ci lii vitrine boobu boo dikkee da nga ko gis yu mel noonu roy iqtidaahan bi sarika nax ji taxoon na ñu def foofu lu mel noonu loola boo demee da nga fa fekk mbindi sëñ Tuubaa yoo xam ne moo ko bind ci loxol boppam ñu nekk ci ay gaal yi dénk yoo xam ne sëriñ Sàmb moo ko jënd gaal gu nekk ñaar fukki junni ak juróom ci yooyu jamono moom la ko jënde euh, at siin la doon loo xam ne bant biñ ko liggéeyee max du ko laal mbóot du ko lekk dara mun cee dugg mu dugal ci téere yi nga xam mooy mbind sëñ Tuubaa ak yeneen demee ñu euh, tëj ci xom bi ci saan yi nga xam mooy seen kii denc ko bugguñu woon mu génn bugguñu woon mu tasaaroo bugguñu woon itam kenn xamati ci dara dañ ko fa denc ngir mu nekk trace Cheikh Khadim am na ci yeneen gaal yoo xam ne dañ faa def téere yi nga xam ne njabootam gi ñoo ko bind mel ni yu alaaji kaamil alaaji Fadul Mbàkke kaamil Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke ak kilifa yu yëpp ku ci nekk seen kaamil ña fa bind nañ ko fa teg fa ak ñi nga xam ne ñooy bindkat yu yàgg yi kaamil yu seen seen seen jëmb ñoom ki ki ki noonu euh, yooyu ma nga nekk foofa ak ak ak i ak i asar yu mel ne kii bank yi nga xam ne sëriñ bi daana ci toog ba yi dénk yu demee nii li doon rek yu xat yu toll ci ñaari mètre ci yaatuwaay mètre ci benn yaatuwaay ci la daa toog buy buy waxtaan ak buy buy dénkaane def tombam yooyu te lal yooyu sëñ Cheikh Fatta ko Jóob moom la yàlla defaloon xelum moo xam ne mi eh, xam naa baaxuk sëñ bi ak leeram moo tàbbi ci moom moo tax man ko di doonul ay minisier ki yëf waaye xar baax yi sëriñ bi la loolu nag daa bari ci jamonoom lool ñoo xam ne ñi duñu xam dara ci lu jëm ci der te da tàggat ñuy liggéey ay jaafire ak yéemu yéemu yéemu ci wàllu eh, jafe eh, kuude te duñu ay wuude ak ñoo xam ne dañuy liggéey lu mel ne lal yooyu ak ay yëf yoo xam ne di yéemo yéemo la lu mel ne bànk yooyu ak lu mel ne kii baraag bi nga xam moo jëkkoon tiim sëñ beeg yooyu sëñ Cheikh Fatta moo ko moo ko sos moo ko liggéey te yooyu jamono kenn mënut am jumtuwaay yooyu sax waxuma nga di ko xam mbirum sëñ bi la waaye nag sëñ Saliou waxoon la ma ne sëriñ bi moo wax ne li xutta bil maahil basiri nasiri man bi yu niiru kalkalal mu asiri moo indi loolu moo sa képp koo xam ne ki da ngaa jamononte ak moom loo dugg da nga ci am ndam loo xam ne leeru barkeb sëriñ bi mooy tabbi ci yow moo tax nga xam lool wala nga mën loola waaye xam-xam rek mayulu ko muus rek mayulu ko jàng mécc mi rek mayulu ko yooyu rek ci la yooyu yëpp amee woon kon foofa am na fa